xul mooy lan. sama maam nee na. sama maam nee na. wa aamilun lillahi. wa aamilun lillahi. ayya amali. ayya amali. wa kaana maqbulan. wa kaana maqbulan. min at-tafadduli. min at-tafadduli. yu'tihim. yu'tihim. dul fadli. wal ihsan. wa hum ruqudun. dhalika zaman. aksara. aksara. min mi'ati alfi di'f. min mi'ati alfi di'f. ma u'tiya al-aamilu. ma u'tiya al-aamilu. duna khulf. duna khulf. waalu deexi. nee wa aalu deexi. wal nuun. wal nuun. maa ko gën ci nuun wal xalami. nee maa ko gën ci nuun wal xalami. ca jën woowee. ca jën woowee. lu tax. nee lu tax sama maam nee na. sama maam nee na. taalibe Cheikh Ahmad Tidiane. taalibe Cheikh Ahmad Tidiane. julli timis. julli timis. julli gee. julli gee. ñii ne ganaar. ñii di ginaar. mu dóor ba gàtt. mu dóor ba gàtt. kafe meew. kafe meew. mu naan. mu naan jaaxaan. jaaxaan. di nelaw di xandoor. di nelaw di xandoor. jaamu yàlla bi. jaamu yàlla bi. julli timis. julli timis di julli. di julli di werd. di werd di julli. di julli di werd. di werd ba fajar. ba fajar. yàlla ni malaaka mi. nee yàlla ma malaaka mi. seetal ma waajee mu doon def nu mu toll. seetal ma waajee lu mu doon def nu mu toll. ñu ne téeméeri junni day. nee mu ne ah téeméeri junni day. wala juróom-ñeenti téeméer. wala juróom-ñeenti téeméer. ci tuyaaba. ci tuyaaba jot na koo def. jot na koo def. yàlla ni kon nag. yàlla ni kon nag. jóoral ko taalibe cheikh bee nelaw. jóoral ko taalibe cheikh bee nelaw. te jël ci benn. te jël ci benn jox ko mu ñami bëtam. jox ko mu ñamu bëtam. dëgg la dëgg. saamaam ni. nee saamaam ni. lii ma wax ci wolof. lii ma wax ci wolof. mu ne waa amil aji jëf. waa amil aji jëf. lillaay ngir yàlla. lillaay ngir yàlla. ay amal gu mu ci jëf. ay amalin gu mu ci jëf. moo xam julli la moo xam werd la. moo xam julli la moo xam werd la. wakkaan te nekk jëf ja. wakkaan te nekk jëf ja. max bool di lu ñu nangu. max max boolam di lu ñu nangu. mi ne tafadulu ci gënal yàlla. mi ne tafadulu ci gënal yàlla. yootihim. yootihim dana jox leen ko. dana jox dul fadli borom ngëneel la wala ihsaan ak borom rafetal ga woom ñoom booba taaliba cheikh yi roqoodoon ña ngay xandoor xër xër dalika zaman ñaata ak sara lu ëpp min miati eh, dixfin ci junni ful ci junni maa utiyal amilu maa utiyal amilu ka doon jëlee ko woo ka doon jëlee ko woo benn nañ ko ca jox ñamu bëtam moom muy ñam bëtam taaliba cheikh jëlal moo tax muy wa arbaabul xabooli. nee wa ar moo tax mu ne wa arbaabul xabooli. wa alu diafi. wa alu diafi wa nuun. wa nuun ak sunu tariixa. ak sunu tariixa ak sunu daayira. ak sunu daayira. sunu métier. sunu métier sunu yoonu. sunu yoonu. kii kii yóbbu muy teewal muy teewal. Sama baay daan na wax ni. Sama baay daan na wax ni. ndegam ña ca wala doowa. ndegam ña ca wala doowa. ñoo daanu ca teen ba. ñoo daanu ca teen ba. waaw ña ca pind ba nag. waaw ña ca pind ba nag. خليل يعوجا خليل يعوجا وانزلا بتواون وانزلا بتواون تواون فيها اليمن تواون فيها اليمن للمتيامن للمتيامن وما طار فيها وما طار فيها طائر متشائم طائر متشائم ولكن هذا تطير الميامن ولكن هذا تطير الميامن ولكنها صارت ولكنها صارت مدينة مالك مدينة مالك وما مالك وما مالك إلا كريم المدائن إلا كريم المدائن yéen sama ñaari xarit. nee ni yéen sama ñaari xarit. waaye jeng leen. waaye jeng leen. wàcc leen. wàcc leen fu ngeen wàcc. fu ngeen wàcc Tiwaawan. Tiwaawan. Tiwaan gan. Tiwaawan gan. Tiwaan ji nga xam ni. Tiwaawan gan nga xam barke ba. barke ba. ma nga fa. ma nga fa. képp ku bëgg lu. lu mu am. képp ku bëgg lu mu am. ku bëgg barke. ku bëgg barke ku bëgg a dolliku. ku bëgg a dolliku demal Tiwaawan. demal Tiwaawan te kat. te kat. fama taara fiiha taa'iru. fama taara fiiha taa'iru. mutashaa'imu mutashaa'imu. walaakinaha. walaakinaha. laa tatuyurul mayaamini. laa tatuyurul mayaamini. aw léeb la. ne aw léeb la. arab buy tukki. arab buy tukki. bu génnee këram. bu génnee këram ngenaaw naaw. ngenaaw naaw. fara càmmoñ. fara càmmoñ mu xam ne yoon wa du baax. mu xam ne yoon wa du baax. bu faree ndey joor. bu faree ndey joor mu xam ne muy doxi dana baax. mu xam ne muy doxi dana baax. ngeen teewoon nag. ngeen teewoon ngenaaw li fi naaw. ngenaaw li fi naaw. ndey joor rek. ndey joor rek. walakin hadat walakin zat tuyul mayami zat tuyul mayami lu ko may tiwaawan lu ko may tiwaawan walakin asara walakin asara madinatu malik madinatu malik alaaji malik kay wa ni amadin alaaji malik kay njendem njendem wa ma malikun wa ma malik illa karimal madaini illa karimal madaini wax boobu nag alaa jabdu ne wax boobu nag alaa jabdu def na ci lixtibaas def na ci lixtibaas ni koñ jàkka ni koñ jàkka faasat faasat waqad taahat waqad taahat bima sharafat bima sharafat ala albiqaa'i bihi ala albiqaa'i bihi bayna al aradini bayna al diini kon ne kon jaageen jëfaat jaageen jëfaat léegi nag ne léegi nag sama secrétaire sama secrétaire sama lépp sama lépp mu waxtaan ak yéen mu waxtaan ak yéen wax leen fi ngeen war a jaar wax leen fi ngeen war a jaar ak li ngeen war a moytu ak li ngeen war a moytu dafa wax dégg naa ci mu wax ba am solo ne dégg naa ci moom mu wax wax ba am solo mu ne barab bi mu ne barab bi dafa am lamp yooyu naan yu xonq yi dafa am. es feu rouge. feu rouge te kenn bind ko fi tableau te kenn bind ko fi. loolu moo tax nag. nee na loolu moo tax nag. ku ku kangar kangar yi. kuy kangar kangar yi ak a dangar dangar yi. ak a dangar dangar yi. waat naa ne bu la gendarme jàppee. waat naa ne bu la gendarme jàppee. gisuma la suul xifaar. gisuma la suul xifaar.